ci euh, xëy na watu Wally Seck ñëpp xam ko aussi ci xeetu comédie fan yi mu doon jël soxna wax fa dëgg ñu ngi koy ndokkeel d'habitude di ñaan see bi na barkeel waaye mu ne la bi mu jëlee soxna ba pare ci di gannaaw gi waaye jurum dafa génn ni euh, moom ñaaniwul yëgul takk bi te kii ñuy wax Pawlish mbay tuddul mbay ab Ablaye fay la tudd waaye jur bi nga xam ni moo ko jur ni bàyyam la ko tuddee mu mel na loolu créé woon na créé na ba léegi sax polémique bu réeree ci réew mi jur boo xam doom buy ñaani soxna jur moo ko war a ñaanali wala loolu du force ci lislaam wala aada la bu fe bu ko defee ñu soogay dugg ci waxtaan déet sa papa. Mhm. da ngay xool fa mu jaar ak yow. Mhm. wutal na la yaay. Mhm. fa mu sotti. nga am ca. mu tuddee la tur wu rafet. Abdoulaye fay nga dem bay am soxna. danga war a dem ca sa baay ne ko man de papa dama bëggoon soxna di nga bu jëkk bu jëkk sax da ngay bëgg eh, dañ lay takkal ki ñu lay takkal doo ko xam bu jëkk ki lay takkal doo ko xam da ngay toog rek ñëw ñu la defee lay néeg bi ngeen defar néeg bi ñu indi xale bi bu ñaawee sa yoon nekku ci bu rafetee sa yoon nekku ci parce que yow sëyuloo xale bi sa wuy jur ngay sëyal mm-hmm. waaw moo tax ñu daan jur ay doomi sang léegi mënatuñoo jur benn doomu sang nee naa la soxna amatul. Mhm. wala bëreetul mhm. soxla moo am. waaw mhm. soxla moo am. ku lay teg ay soxla rek di la indil ay problème rek moo am waaw boobu amoon bu ko defee nag bu sa bàyyi d'accord eh, dem seet ñaanal la mu am barke déggoo ñaan papa ji moo ngi ñaani ñaani lañ wax kii ñaani nag buñ ko mayee mu ñaan nga am barke waaye boo demee changer tour changer ku lay may ah loolu nag bu jaaduwul doom moom ca wuy jur wa rek waaw donte mën nañ laa may waaye nag waaw sëy bu papa àndul bu doom amee sa papa ne jono demul nooy def mbokki ndaw sax war nañoo tiit ndax mbokki ndaw si ñoom li leen tiital mooy ana papam ñu ne papa ji dañ ñëwul ànd sëy bi kon nañ ko négocier ba mu ànd ci sëy bi mu delluwaat ci ab Ablaye Fayam delluwaat ci baayam normal su ko deful du dem. même bu fekkee papa ji sax deful li ko war ci digganteem ak doomam boobaa tamit est-ce que doom ji sañul doxal boppam rek. deful li ko war. waaw deful li ko war. mooy comme euh, wax fa dëgg yàlla ndax Pawlish kenn musul xam sax ni am na ay mbokk. quand même am na tantam bu génn wax ni euh, ah. papa ji da ko woon. nekkul ci dëgg ni mu doxalee nii. déedéet déedéet déedéet déedéet nee na du way jur yooyu itam way jur kenn léegi léegi dama dama lay moom ci boppam gannaaw way juram eh, del deful li ko war na def li ko war moom delloo way juram li mu ko defal di dem mën naa juraat baayam. déedéet mën naa ngénte baayam. déedéet mën naa wutal baayam tur loolu lépp mënoo ko def sa way jur. sa wuy jur kenn mënu ko won gannaaw lu mu métti métti métti da ngay xam ne sa wuy jur boo nul carte d'identité mënu wut benn bàyyi bàyyi bi la jëlan maay sa bàyyi maay sa nangam ngay def euh, Paulus xaw ma naan joon jon wala jooni wala ya sant boo boo jël te jëla sant bàyyi doo dem bàyyi dafa am solo moom daal liy wax ji du du ëcc ko defer ko mooy wax ji na dellu ci papam ne ko baal ma demal ñaanal ma may nañ ma pare nag waaye nga baal ma su ko papa ji ne baal naa la sëy ba wéy na su ko papa ji baalul sëy ba wéy na waaye dana am difficulté nekk ndax wuy jur wu ci àndul a tax wuy jur wu ci àndul wuy jur de bàjjanam ak tàntaam ak ñëpp a waaw ñépp a ci am na na reconnaître wuy juram na toppatoo wuy juróom na fonk wuy juróom na bàyyi xel wuy juram loolu daal muy muy mbir waaye bu fekkee ne daf ne bi may xale reconnaître ma ba may nangam nangam xam nga koy def ni mbaggee am nga aslëf ah, am nga aslëf oe gars yi def am euh, ma xam nga nangam nangam ni yi naan wuy wuy wuy wuy naan wuy ñëpp bëgg nañ ci lëf si yow mi naa nit am nga aslëf noonu du noonu de seytaane lay bëgg a jay seytaane lay bëgg a dugg seytaane ngi lay bëgg a yàqal bàyyi loolu dellu sa bàyyi waaye lan lan la lislaam wax ci lislaam la war ci doom waajur bi nga xamante dafa jur doomu ba pare <laughs> deful deful la war ci moom dama ne lu war ci moom. lu xam nga yéen da ngeen di dégg waxi waxi rajo bi dama leen wax léegi. ah lislaam waxul ne way jur waaye déglu rek rek. Mm. Eh, li nga wax xadis la yonent bee ko wax kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi yonent bee ko wax ñëpp la wax ñëpp sàmm lañ te kenn ku ne la ngay sàmm bu ruuree dinañ ni ko laaj yowmal xiyaam bu tax mu ruur su ruurul ñoolu tax lu wér la yonent bee ko wax waaye moo tax ma laaj la ne la lu tax wuy jur yi deful lu ko war lan moo war wuy jur ci xale lan moo war wuy jur ci xale na ko tuddee tur wu rafet tur wu rafet na ko jàngal na ko yar na ko yee waaye nag dama ne la bul dégg coow li ci li ci teen bi nga àtte waa teen bi coow li dafa bëri eh, kii dafa ma yoru loon kii dafa maa defal loon kii dafa ma ñoom liñ bëgg mooy seen papa na leen defal xaalis 18 ans ku ko am sa papa wàccoo naa yow ku dundal xale ba mu am 18 ans wàccoo nga moom ci charia yar nga ko ba mu màgg ba am 18 ans wàccoo ngeen ci charia su ngeen wàccoowul itam yow la neex su ngeen wàccoo looloo looloo waree c'est ça waaye nag bu leen dégg coow li ne ah, ah toppatoo du doomam wóoru leen wóoruma man duma ci dugg toppatoo na doomam toppatool doomam wóoruma moom daal <laughs> Pawlish daal xama Pawlish xama takk moom takk na jabar bàyyam génn ne maako ko jur Abdullahi laa ko tuddee tuddeewu ma ko Pawlish ah Pawlish xawma dégg nga eh, tuddeewu ma ko ko waay waay waay waay waay waay papa ji li wax rek mooy dëgg waaw jeex na nañ jàpp ci loolu bu ñu toogee nag ñoom ñaar baay bi toog xale bi ne man de tuddewuma tur bu rafet ñu ne ko noonu tudd mu ne abdallah ñu ne ko ah juum nga jàngaluma ba ma nekkee jàng ñu ne ankay ah, da doon daw moo tax ñu bàyyi la di da daw yaruma ñu ne ah dañ la doon yar yaa féetéerlu lu ci nekk ñu seet ko waaye bu fekkee ne nag def ko yooyu papa jën nag juum na waaye ku juum dañ lay rectifier dañ lay rectifier ci li nga juum ne la nii nga war a def waroo def nii waroo def nii waroo def nii dañuy dem ci boroom xam-xam ñu rectifier la waaye duñ dem yóbbu say ci ay ay télé ay rajo ay site internet ak kenn ku ne di wax lu la neex boobu sëy sax du baax sëy baa ngi commencé bon boobu sëy sëy baa commencé bon ndax ba ci loolu bokkee rek la loolu bon waaw ndaw si dana tiit mm. nee waaw man kii ñu ma may lii moom mbaa dana jëm kër yaay ji ne ah waaw moom kii ñu may sama doom baa dina jëm kër ñoom lu ñu mën a xew ak lu mën a xew danañ tiit lu mën a xew danañ tiit voilà léegi est-ce que doom sañ na ni ma diw ma jur déedéet doom du ko wax doom du ko wax parce que moom bañ koy amal amul <laughs> fekkee ko fekkee ko di yaay daal bu naa fekkul seytaaniwul bëggul rëbëje man naa wax ne diw moo jur sama doom mm-hmm. waaw ndax eh, jigéen ju ne moo xam ko jur doom mm-hmm. am na benn bés benn jigéen mm-hmm. eh, dafa am juróom-ñaari doom bis muy xuloo jëkkër ji jëkkër ji ne ko yow doppi ma am sama doom ba tey maa yow nii rek xanaa bu demee ba ju juróom-ñaari xale na war ngaa normal ndaw si xam nga lu ko wax hmm. juróo leen diwa leen jur te mu ngénte juróom-ñaari doom juróom-ñaari doom mu ngénte leen mu doo ko wax juróo leen léegi ana àq doy ndaw si da doon wut nga ñaay hmm. juróom-ñaari doom ngeen di juróo ci kenn diwaleen jur su ma demee ba ma ëmb ñëw ci yow ñu laa def ak xam nga yàq na kële mm-hmm. yàq na kam ko amal doom mm-hmm. yàq na boppam mm-hmm. danoon faj mer far lépp yàqu moom bu la ci kenn naa jigéen moo man ni diw jur sama doom waaw doom mënu koo wax doom nag mën na ne mas naa def benn conférence ba ma jegee ci conférence ba paa bi jaar sama boobu ma ne ko papa waaye kër naa jaaxal man aw ma aada bu ma paree conférence dugg ci kër waaw mu ne ma waay waay doom nañ dem rek ma ne ko dimbali ma papa mu ne ma dimbali ma rek ma dugg ci kër gi toog mu woo yi woo seen yaay ñoom ñëpp ñu ñëw eh, ma ne kaay ah, ma ah, papa yaay jur nii mu ne ma waaw loolu seen yaay wax de <laughs> ñu ne ma lool la seen yaay wax di ma ne ko seen yaay yaay yi meer bi ree te waa allah ji loolu nga yaay amul ah loolu nga ma wax de <laughs> ma ne ko yaa leen jur ndax li ngeen ni ngeen joué film bi rek yaa ko jur uh-huh, uh-huh, uh-huh. waaye bu ndaw si fëñër fëñër yoon rek jur ko waaw loolu jigéen moo xam ku jur doom jigéen a ngi ci kër di boot di boot di boot di botti ba feral jot mu feral bootaat keneen di botti di boot mm. di boot ba mu yàgg mu mm. feralaat mm. léegi yooyu yëpp juru ci kenn man suma la nobul dama lay bàyyi mais du la du ma la jël nii rek eh, nga nekk sama góor di ma jox alal di ma ma nekk ci keneen loolu loolu dafa garaaw bari bëri na jigéen ñoo xam ne tey seen jëkkër tur rek la waaye ka ñu nob dëgg seen far la lu ñu am moom lañ ko yóbbu lu ñu am faroo lañ ko yóbbu seen jëkkër dañ ko ignoré faalewuñ wuñ ko dara xanaa weeru dee ñu jege ko mu jox leen li mu am waaw te ji loolu jaru ko nag soo ko xamee dafa am benn système boo xam ne yàlla def ko wax yonent daf ko ne del demee xel di demee xel del demee xel te nga teey mbir mu doon deme ci xel te nga teey nga booy demee xel ci teey da nga jàppale ngay da nga jàppale ngay wut li ngay wóor da nga ko jàpp parce que am na jigéen ñoo xam ne kenn du leen wóolu kenn du leen wóolu waaye nag doo ko mën a wax da ngay dem demee xel rek di demee xel rek ba ba ni ko nuus ne ko lii laa bëggoon bul defe ne li ma lay defal dama laa nopp rafetoo jekkoo doo dara lii laa doon wóolu ko fa dem see waaye nag bul gaawantu teel rek bul dégg teel rek bul gis teel rek teel ba yem ci sa yow ba ba nga xam ne gis nga li nga gis muy lu wóor ne lii la nga doog a def waaye jigéen ñi xamuñu lu xew am na yaa ngi sëye góor ki xamoo góor gi da nga koy gisal waaye xamoo ko xamuloo góor gi mukk ndax pexe yi mu yore di ko di ko nas di ko jëme ci yow soo ko xamoon sax nga bàyyi sëy sëy daal nobal baa nga bàyyi mm-hmm. waaye nobantu nopp kële nopp noppantu sa jëkkër nopp sa far loolu mooy lan far mooy lan far mooy lan far mooy wuyu la rek parce que am jabar pare dem di am am beneen góor kay yow koy nga rek ah yow wóor na ne ki am na jëkkër mu def la far jël sa alal muy jël alalam di ko jox te ndaw si mooy ndaw si mooy jox xaalis bi bëgg jabar jàmbur waaye loolu nag mooy ak wuyu mm-hmm. waaw ak bandi la rek mm-hmm. bëgg jabari jàmbur euh, parce que da bëgg bu biir euh, duñ la ko jiiñ. waaw ah, <laughs> pour ma mën a ji rek eh, nga yoxos nga yoxos yow waaw. waaw mais nag yaa ndaw si da ngay ne xam yéen ñaar rek kay xam ndaw si naan la eh, am jëkkër de dëgg da nga am jëkkër bu ma fontoo de yemal sa jëkkër rek eh? waaw yemal foofu rek moo gën a wóor waaw mun aman kay daa yem foofu ndax moom fa ne mu naan ma sa weer de sori nga fi mu sori nga mu ne wax waaw waaw mu ngi wax waaw waaye yàlla xam na mhm. mhm. yàlla xam na lépp dara umpul yàlla yàlla xam na lépp dara ñu ngi jigéen ju baax mhm. day moytu doon jigéen ju baax dëgg dëgg dëgg dëgg ah pour góor gis awraam sax beneen affaire la jëkkëram gis ko beneen affaire la waxuma laa ngi nag ko jot rek ku jóor rek yaa ngi